jërëjëf re baay jaaraama baay yoo ana baay daanoo kii jar na woo le 17 ñu dem ca baay yoo xam nga ne le 17 du yokk le 17 le 17 le 17 le 17 le 17 le 17 ko si ñëw ko si sunu moom murit international ñu gën koo xam ci soldaaru Baye Diagne. macha allah. ba bëgg a ñu ci doxaan def bu kenn tàkk. waaw jaam yu rafet mu ci macha allah. asalaamaaleykum yéen waa àddina yéen waa Nioro Médina Sabakh yaakaar naa ne ñun ñëpp benn bopp bi de parce que ma xale yi macha allah dama bëgg ci ñoom te yàlla tax. ah sama doom yi nag faal nga yaaram ma di sàmbay faal nit ko dugg jàng bis boo dee tëdd la nag naa ba dama yéeg sa bigal boo dama yéeg sa bigal ne bigal ba nañ dem dafa ko di ko Baye di taaliba Baye Diagne Baye Diagne lu ko waaye dafa rek doy ndax Baye Diagne moo yor xale yi moo gunge bot gi muy bot jaañ naa sa fay lu bii ci barki borom Tuubaa Mbàkke na sax xale yi nag dañ la gërëm na ndeysaan bëgg laa defal nag bis bis bu neex bu sell njukkal baay jaañ ah loolu neex na bàyyi nañ gis ba déggoon baay te njukkal baay la rek jërëjëf da baay jaaraama baay ñoo ana baay jaañoo kii jar na woo yee jërëjëf baay jaaraama baay yéena waa Ngoyane ñoo naa lii dafa neex yooyu lépp ci la biir lépp ngi ci biir ja ñaar lépp ngi ci biir dox daje lépp ngi ci biir yoo tey ma wël sa maam ñu njukkal baay am ci baay ñu jeex ci baay le 17 yoo le 17 ñu dem ca baay yoo xam nga ne la di sëdd bu ñu riree jaañ yaa ngi wan fi ñu war a jaar ana sama doom de way wi démb laa yooy tey ma way sama am ma jaañ bàyyi ba mu neex ma kenn du ma tere yeey bàyyi ba mu neex ma kenn du ma tere aha ñu jox ci bàyyi <laughs> ee eh, ñu dem ci bàyyi ah. bàyyi yaa leen di gindi yaa leen di wan na fi ngeen war a jaar yoo tey ma way sa maam way wi démb la asalaamaaleykum wa rahmatullah taala wa barakaatu maa ngi sant bàyyi mhm. bàyyi jaan ñi nga xamante moo yore xale yi jaan naar yoo suñ dukkale du yomb de mhm. lépp ci nekk li tax moo du yomb ah xanaa ah, bu ñu jukkalee bàyyi ñu dugal ci voyage sax ba du yomb ñu namul dara parce que Serigne Saliou lii la nag fii nag moom tey la tey waaye suba suba démb démb la waaye bi yooyu bis yooyu lañu fekkee yëpp a yëngu parce que Serigne Saliou comme neex na pare waaw la dessert kan du yomb Kossy US Kossy US ah waaye dégg nga Kossy US dama bëgg ko làkk français léegi sax ndax mooy loolu. waaw kooku la jëlee mooy pare. ma ne ma ba ak maa kusapara bajeeri koli danay kole waaw ma macha allah ay ma baax sim Ousmane nga daan somu nga ko ndoo maga neex njogo ma paate biram ma ca sino yaa doon koli nan naa maama nga tu te ñoro ku baax ni a lay mel awagatu jamaay baata seen morom géeri ma njaay ku baax ni yow lay mel jëri ko li mi tindi mi tegay baala gi weddi baala tay tay jolu mi yàlla nga ba jàmm ci ngëdd mi ci ngëdd ma ñaaw ma di sàmbay fal yëpp ay baax barke sëñ Saali macha allah aha asu njaay jéegu jaañeen jéegu jaañeen yëpp la jéegu jaañeen yëpp lañ ko fa man kon neex na ñëpp la waaye xam nga kon bu ne jéegu ah, jaañeen kon desul kenn desul waaw ah. ah, ana ba jaañ waaw muy Maman Touré kooku mooy Maman Touré ndeysaan su yaay ji falanta faana ne rek ismette ku ndaa sambu délicat no lii de laa wax oh. kooku mooy yaay yëpp nag bu nga xale yi teete xale yi. macha allah kooku maman Touré nag. kii sa guddi la. macha allah ba ku ne baa rek yow la. jërëjëf yaay booy. kontaan nañu bu baax